ndigalul mbalem poroxaat mi ñu ngi ko jot ci Cheikh Mouhamadul Mountakha ci atum 2008 ci lañ ko jot ci moom ginnaaw boo xam ne am na liggéey yu ñu ko doon jébbal bu ñu demee ci 2007 gis dëkk bi te booba màggal gi jege si na mu am aw melo ñu waxtaan ci ak moom leeral ko yéene ji nga xam ne moom lañ ci bëgg te mbokki taalib yi bëgg ko ci moo di saa su màggal gi jegesee nu ànd ak mbokki taalib yi nekk Kaolack dem bale ji ko loolu sëriñ ci lool waxoon ma ne ma de loolu su ngeen ko defee defal ngeen ma ko defal ko Soxna Jaara defal ko Serigne Touba ndax dëkk bi nit defu fi lu gën li ngeen di def muy fexe lu jiitu màggal gi ngeen ñëw setal dëkk ba dëkk bi set loolu de ku ko def jëfal nga ma lu rëy loolu ci ci atum 2008 la nu ko Cheikh Mouhamadul Mountakha wax. boobu ba léegi tamit noo ngi koy ànd ak bokki taali bi nga xam ne ñoo dëkkee Kaolack ak li ko wër saa su màggal yi see nu ànd ak ñoom dem bale ji dëkk ba ba mu set. bi ñu koy tàmbali tamit gis nañ ne mbooloo mi néewoon na ci doole lool ndax loo xam ne ci benn camion nga ko tàmbalee woon nga dem ba wax dëgg yàlla ngay yóotu tey nga ne maa ngi soxla tey ñeent fukki bis ak ay camion ak ay ay ay ay kaar yi njeganjaay ak minicar loola mel na ni liggéey bi yàlla nangu na ko sëriñ Tuubaa mi ñu koy jëfali tamit nangu na ko moo tax saa su ne li sëriñ bi daan wax ne darajati taalu wala sa tan wa man naxa minal wara xafdi xufit liggéey bi firnde firnde la ci lam daan wax ne sama tey ju nekk gàccal na sama démb nun ñii di liggéey liggéey bii de xam nañ ko bu baax a baax a baax ndax saa su nekk su liggéey bi yegsee ni ci mbooloo mi sóobu ak yéene jiñ ci am yo ak yokkute giñ ci am loola ku Sëriñ Tuubaa wax wax ne darajati taalu wala sa tan xafit boo yëree liggéey bi mën nga ci mën nga mën nga ko caa gis mën nga ko caa gëmee yi tamit mbalem ren mi ngi nekk dimanche di fukki fan ci weeru mars 2019 dimanche le 10 mars 2019 incha allahu ci lañ fas yéene jógee ci Kaolack ak dëkk yi ko wër incha allah juróom-ñaari waxtu ci suba muy 7 ci suba lañ fas yéene départ bëgg nañ daal fukki waxtu balaa jot ñëpp yegg Poroxaan ñu fas yéene tàmbali nañ ko daa defee wàcc ci kër Serigne Cheikhoum Serigne Saliou fas nañ fa yéene fa wàcc fukki bis ak juróom yeneen bis yi ci dëkk bi ren am na ak soppiku ndax waxtaan nañ ci ak Cheikh Mouhamadul Bachir Mbacke moom sëriñ Moustapha Bachir ba danañu boole commission ba fa nekk su ko defee ñu tasaare bis yi ci biir dëkk bi ba nga xam ne daal bala ñu faa def ñetti waxtu wala ñeenti waxtu incha allah bëgg nañ lépp loo xam ne nekk na mbalit ci Poroxaan mbooloo mi fas yéene bale bu soobee yàlla ba mu set wecc wàllu jumtuwaay yi allah gis nga mbokki taalibe yi ñu ngi ci bu baax lépp loo xam ne daal am nañ ko ci ay bagage moom du doy boo jëloon boo jëlee boo jëlee bi bis bu nekk juróom-benn fukki nit lay def ak juróom boo ci amee ñeen fukk daanaka loolu mbooloo la te matériel bi ñaare ni ko sëñ ji leeralee du toll noonu su ko defee li nga xam ne tamit moom lañ soxla ci bokki taalibe ak bokki jullit ñeek ak lu waay man man ñu ci jàppale ci wàllu ay matériel matériel yi moom du doy ñu tàmbali ci bureet rato euh, ay saako ay bale ak ŋoos yi wala bayukaay ak lépp loo xam ne nit dana ko mën a jëfandikoo wala ay camion benn wala gasoil bu yóbbu nit ñi wala luy tax nit ñi mën faa nekk ci ay ci ci ci ci ci lu mu mën a doon rek soxla nañ ko. ndax loola du doy am na bagage yu fi nekk waaye bagage yi mbale moom xam nga neexu la denc at mu jot rek da ngay daal di wutaat yeneen yu bees te lépp taalibe yi ñoom ñoo ñoom lañu ñu àndal ñu di ko jaayante kon nag ñu ci tàll loxo képp koo xam ne daal mën nga nu see jàppale ci ay bagage moo xam bureet la moo xam bale la moo xam rato la moo xam bale la moo xam ay buubukaay la moo xam oto wala gasoil lépp loonu nu si waay jàppale daal ñu defal la ko ci sëriñ bi te ñaanal la yàlla sëriñ bi fayal la boppam. waaw alhamdulilah xéewal yooyu nga xam ne tamit ay barkeelu la muy ay reer yoo xam ne dañ ko daan jaayante bu fi sëriñ bi demee poroxaan ba ba màggal gi muy ay cere euh, cere jooju alhamdulilah rabil alamin defar nañ lépp euh, ba ñu ngi ko tàmbali di ko pakete euh, moom itamit liñ ci waxoon ci yokk mbirum sëriñ bi. daaw bi ñu ko defee amoon nañ ñaar fukki bërigo ak juróom muy 2 tonnes 500 fii ñuy wax ak yow defaragun nañ 3 tonnes 500 yoo xam ne defar nañ ko ay cere weer nañ ko ba mu wow incha allah bu sëriñ bi demee Poroxaan rek ñu daal di dem jébbal ko ko bu soobee àlla kàddu yi ñuy tëjee daal mooy woo mbooleem taalibe yi ci liggéey bii nga xam ne sunu njariñ moom moo ci nekk ndax mag ñi kat ñaar rek lañ rawe woon muy bay ak buub moom lañ rawe woon. mag ñi nag daanañ wax ne dëji mm, dëji dab ak bale ak bay ak buub lool lool dafa bokk ci liggéey yi nga xam ne euh, Cheikh bi da cee rawee woon ñu bari ngir bunt la bu ubbi woon xalal ko nit ñi jaarale leen ci ba nit ñi nit ñi nit ñi nit ñi nit ñi rawe ci am na ku mas ne ko dama lay faal ana nu ni def ba dabe mu ne ko bindal dab bindal dabe mu bind ko mu ne ko bindal dab mu bind dab mu mu mu mu ne ko dab ku bëgg a dabe del dëji dab. Mm-hmm. del dëji dab kenn ku ne xam na ne baleeg buubi tamit loolu nit ku rëy du ko def. Mm-hmm. te rëy moom yàlla rek ko jegoo képp koo xam ne fekk na ko ci rekk mu lakk la kon nag jaadu na ci ci dindi jikko yooyu rek jaroon na nit ki xëy wutuk bale di bale ji. Mm-hmm. rawatina nag balel ko mel ni soxna jaara kon nag ñoo ngi ciy woo bi yëpp di ci soññ sunu bopp di ci sant ñëpp nag. di ci sant di la ci sant bu baax yow sëñ Fallou ci sa taxawaay eh, di sant mboolem ñi nga xam ne ñoom ngay liggéeyandoor di sant sëñ jiileeg mboolem organ ko ñi nga xam ne ñoo ñu jàppale ci liggéey bi jëwrin yëpp bu ñu limee dinañ juum sant nañ ñëpp gërëm nañ ñëpp waaye ñu ngi woo ñëpp samedi incha allahu le dimanche le 10 mars ñu dajee ci poroxaan fas yéene bale ko ba mu set Cheikh Mouhamadul Mountakha ñaanal ñu ñu dellu si waajal poroxaan ji